ñu dem rek ci li nga xam ne moom mooy euh, Alioune sàll wala balaa boobu ñu dem ci Fadilou Keita Fadilou moom bokk na ci ñi gëm ni Macky Sall mbiram waree su ko bàyyi noonu dañ ko war a àtte fii ci Sénégal suñ ko def rek tache bu noir lay doon pour Sénégal ñu dellu si waat. kon mandat xëy na ñun mën nañu toog di préparer di ko xaar. man li ma gëm buñ man li ma gëm mooy. Euh, président ma Sall avec tout ce qu'il a fait au Sénégal bu répondre cest à que il un point noir sunu gouvernance ba ilaa yawmi diin parce que euh, li fi am c'est-à-dire que tin du ay du ay mus la ñoon de cest à que ay doomu aadama la ñoon rey quoi kuñ fi laayoon sa mbokk di nga koy waxuma lu toll ne si quatre-vingts personnes kaaw ñoom Didier Badji gis nga ko xëy ay gendarme di disparaître comme ça ñi gars yi fi nekkoon di ko def ñu ngi fii ci dëkk bi c'est-à-dire que ça c'est des choses yoo xamante pour man ñoom dañ ci war a a tontu parce que ñun ba ñu war a tëddi kaso tëdd nañ kaso de si ngor nag ak dignité kenn dégguñ ci dara ñu muñ président la république dem na tëddi premier ministre dem na tëddi tey ñooy relevé yi mais ñi nga ba ñuy tëdd du si xooqatal du si tooñ mais dañoo war a tëdd pourquoi parce que dañoo jël li askan bi bokk jeunesse bi yëpp li yaakaar ñu compromettre ko pourquoi parce que jeunesse bi dañoo c'est-à-dire que programme yi fi am fii programme sociaux par exemple dañuy gis ñu ne non dañuy def ay bourse familiale wala li jël lépp politiser ko yaa dégg bu nekkee da ànd ak ñoom yow loolu def xayrun bu nekkee àndoo ak ñoom ñu fexe ñu la tuumaale ñu dugalee kaso ñu disloqué sa famille ñu la toroxalee mais ki def loolu en chef jàpp suñu ressources naturelles yi wax ma ay affaire Petro-Tim li ci def yëpp mais aussi dégg nga fan yi a mi ngi noonu moom Fadilou wax naa leen ko ci njëlbeenu wax ji incha allah ci semaine bii ñu dugg ma jigéen Diop dina ko am entretien ndax euh, euh, accordé na ko ko ci kanam tuuti incha allah fu 9 jotee am nañu entretien exclusif boo xam ne itamit Omar Bun am na ko ak Outmane Diagne loolu yi lépp danañ ci dikk bàyyi ndax da ngaa bokk ak Fadilou xalaat ak ñi nga naan Macky Sall parce que dégg naa ko mel ni Moustapha Diakhaté keneen kenn wax ko ni mënuñu ci moom dara mënuñu ko atte parce que amul lu mu fi def ñoom nag dañoo jàpp ne bu ñu ko attewul fii ci Sénégal def mel temps noir lay doon. waaw am na solo bu président Macky sàll buñ ko àttewut taas lay doon. waaw buñ ko àttee mooy doon taas. ay ci bisimilah développé waaw président mag réew mi di réew mi Sénégal du réew moo xamante ni ab président dafay jaar dem si jàmm ak salaam ñu jëliwaat ko ñëw fi naan ko dañ lay àtteeg dañ lay tëj. Mhm. loolu moom du xalaat. waaw it bukkut sax si programme Sénégal. boo xamante ni dañuy tëj ay président ak jàppi président. Hmm. léegi nag li tax Fallou li mu wax moom xalaatu boppam la ndax dana pour man lim xalaat moom. waaw nit nag am nga droit wax sa xalaat. mooy lim jàpp ni moo war a am. waa moom loolu la jàpp. ndax nga ko àttee lay nekk taas noire. non taas la lim tax mu jàpp ne bu ñu ko àttee naa doon taas man noo tax ma jàpp ne bu ñu ko àttee taas la si Sénégal. wala yow sa développement comme yow laa jàkkaarloo sa développement ci loolu lan la. taas la si président Bassirou Diomaye ci nag wax naa la ko fii nee naa la Senghor yor na ba bàyyi jox Abdou juuf Abdou juuf bi mu ñëwee dafa jublu ci liggéey bi yor ba bàyyi jox Ablaye Wade Ablaye Wade bi mu ñëwee da koo sargal weer wu dee ñu fay ko jublu si liggéey bi Macky Sall mi bi mu ñëwee ak lu fi Ablaye Wade mënoon di def jël na Ablaye Wade teg ne weer wu dee mu jox ko lim sartoog moom jublu si ak njabootam ni leen kaay leen ngeen leeral li ñim si war a jàpp ñëpp ñu woo leen convoqué leen jàpp leen am na si ñoo xamante ñaar lañ jàpp ñeneen ñi bi ñu ràllee ñu bàyyi ñi si des xamoo leen mais man ñi ma gis ko ci réew ci wootee ñaar la hmm. ci des bañ jaa duggee ci partem lañ leen bàyyi waaw mais am na suñu Ousmane Ngom fii lañ ko fekk mu nekk di féexlu ñu jël ko dugal ko bi duggee ko bàyyi voilà léegi déet mën naa am daa delloo ndax nee nañu mën naa am am ndax ba Mimi Touré fi nekkoon loolu da ngay laaj Mimi Touré ba xam dafa am ñoo xam ne dañoo delloo wala delloo wuñ mais man yow ñoom mimi laa laaj. si laa nekk non dama lay wax rek si laa nekk ni ñuy doxee man affaire gouvernement laa lay wax. ba léegi nii déggu leen benn yoon Macky Sall jéem a wax dara Ablaye Wade jéem a jàpp wala jéem a nangam te am na loo xam ne mënoon na ko si jéem topp mais si sartu réew mi ab président waree su koo topp leen. ci sartu réew mi non non si sama sart man. Ah, waaw léegi kii nga xam ne mooy président Diomaye bi mu ñëwee. bi mu bi mu faloo président Macky dafa dafa woo mu ñëw ñu toog ñu waxtaan mu leeral ko pale bi wax ak moom. mu sargal ko mu daal di dem mu organiser ko waat président Bassirou Diomaye Faye dem waat. bi mu ñëwaatee mu jox ko réew mi président président Bassirou Diomaye Faye sargal ko jox ko avion mu dem ñibbi. waaw boobaag léegi dégguñu président Bassirou fay yëkkati kàddu jëmale ko si président Macky Sall xalaatu ko li ko war mu ngi ci mi ngi liggéey liggéeyam. gouvernement bi ñu ngi liggéey seen liggéey mais man président yi ma limal Macky Sall ko Abdoulaye waat defal hmm. defalu ko président Diomaye man defal ko président Diomaye bala ngaa ñëw ci euh, yow taas defal na ko kay président président Macky Sall moo fal Diomaye nu mu ko fale hmm? nu ko fale ni mu def ni mu doxalee ak ñoom moo fa mu fal déedéet aha kay même bu ko deful woon day daanu mais mais mais mais mais mais mais Macky Sall bu ko defulu toon day daan Abdoulaye Wade deful toon day daan waaw nag xam nga Macky Sall Abdoulaye Wade bi muy def préfet serment presse bi dañuy ñëw fekk ko pale ñu def li ñuy def après mu jox ko léegi ngay wax ak njabootam dem. Mhm. Macky Sall keroog bi fi am ca jam ñaajo fi la nekk pale ah. fekkewu ko. Mhm. jabaram fekkewu ko. Mhm. mu toog ak xaritam bi président Diomaye ñëwee. mu nuyoog moom génn jël avion dem yoon. Macky Sall dafa jiitu loolu. dafa jiitu waat bi laataa waat bi la woo président Diomaye mu ñëw toog ak moom toog. mu waxtaan ak ñoom. waxtaan ko njaboot waaye léegi ñëwal ma ci tasse noire bi. nga wax ni bu ko buñ ko attee lay doon. maanaam mooy fii ma jaar loo xamante ni nit musta rempli président ba jublu ba xalaat loolu. kon président Diomaye buñ ko xalaat loo loolu. loo xamante ni gisoo mosoo gis président bu ko def Sénégal boo ñëwee bul ko def. lijjanti réew mi teg ko ci yoon. koo war a woolu woolu ko. koo xamante ni lii la def def ko. ok waaw ndax président Macky nag. doo dem fenn xaj na gis benn signature boo xam ne danaan jàppal ma diw wala rayal ma diw wala nangam nangam wala nangam nangam wala sàccal ma diw wala nangam ndax président la woon président njiitum réew la woon. am inimmunité. am malaanum kiir laay am li mu war a am lépp. kon président Diomaye dañ koy sargal si li mu def ak président Macky Sall. Hmm. kon bu mu dugg si loolu joxe hélas. bu mu dugg ci loolu. waaw bu mu dugg si loolu. Ah, mais pourtant yow yaa fi doon wax fii danaan ku ñu fi jàpp danaan président ma may président ma jox. ci émission yi ñuy def. Ah, man daa sama waxee tey ngi nii. jël si li nga si weesu nag. loolu jàll na sama fu. ah waaw parce que man xam nga boo ma waxee lii man mii laajaat su dee man mi toogoon laajoon naa la ko nga waxoon ma lii ni ma ñii fi jàpp ñëpp ko wax mu ni président ma may nañ dem laaji président. loolu léegi ñu ni président bi dañ ko war a àtte nga ni kenn du ko def. kenn du fi àtte président Sénégal tama fii ne. suñ ko dee àtte. ma ne maa ngi fi yaa ngi fi. ah kon nguur gi ngay menacé. man daal yow laa tudd te yow laay waxal Ndiogou noo gisee Fadilou ak li mu xalaat li mu wax bu ñu déggee Assane moom ñi fi jaar ñëpp ku ci ne dañ laa teral kon Macky Sall dañ ko war a teralee bàyyi ko mu dem mais Fadilou moom jàpp na ne ñàkk ko àtte benn tâche la boo xam ne Sénégal daf koy am Macky Sall de dinañ ko àtte xam nga kañ la nag loolu mooy li nga xamante ni bi moom mooy mbir yi parce que jàpp naa ni du léegi bul fàtte ni Sénab rek euh, ca jamonoy Abdou juuf la ñëw senegal atte wuñ ko ba jamonoy Ablaye Wade Abdou juuf jeexal Ablaye Wade ñëw kenn attewu ko Ablaye Wade ñëw ba Macky Sall moo ko atte def na ay ati at buñ la waxee ne dañuy atte Macky Sall waxuñ la ne la suba la waaw waaye dinañ ko àtte. Hmm. parce que loolu mbir la moo xam ne faaw ñu càmbar ko yaa ngi jël aussi ay président diggante Senghor ak abdu juuf amul hmm. pont nguur gu Macky Abdou juuf doon yeggale la. Hmm. demuñu ci ay élection Senghor dafa def discours am jébbal Abdou juuf nguur gi. daal dee dem yoonam comprendre nga. bokkul Ablaye Wade gagné Abdou Diouf. ginnaaw bu abdu Diouf defee lu mat ñaar fukki at. Hmm. laa Wade gañe ko waaye abdu juuf am na foo xam ni yóbbu na fa démocratie Sénégal am na lu bari loo xamante ni bii def na ko loo xamante ni bii tax na ñu naw ñu ba sunu première alternance mu nekk alternance boo xam ne alternance bu am solo la sénégalais yëpp daatee kontaan. Hmm. Abdou juuf bu utiliser woon. Euh, pexe yi Macky Sall di def kon Abdoulaye Wade mën na bañ a doon candidat. Hmm. mais defu ko Abdoulaye Wade bi mu ñëwee dafa wax ne du ma def mooy ko juuf dinaa def li ma war a def Abdoulaye Wade am na lu bari loo xam ne moo ko autorisé bàyyi ko. Hmm. mu daa dee dem liggéey na aussi tamit ci démocratie Sénégal am na lu bari loo xamante ni bii. Hmm. def na ko lu war a tax euh, mu mérité yenn yi. mais Macky dafa yàq lu bare bare bare nii nit ñi di politiquer nii ak fi yëf yi toll bu fi yegsee see Sall la Macky dafa dem ba mujj gi nit ñi bañante ay haine am <coughs> mu def lu kenn mës sa def jàpp de deux mille jeunes ci kaso yi <coughs> loo xam ne kenn mës koo gis situation bii ñu nekk nii tey yaa ngi dégg <coughs> ñoom ñu nekk ci di wax mm-hmm. naan ba noppi ñoom ñu ñoom ñoo indi même problème bi nga xam ne li ñu bëgg a wax ne ñoom mooy seen problème te ñun du suñu problème mm-hmm. muy que ni way na Sonko dem fële bu ko defee day kii lii day kii mais problème boobu ñoom ñoo ko indi ñoom ñoo bañoon ko nekk candidat mm-hmm. lépp ñoo ko def jaral leen pour waa ji du nekk candidat di éliminer ay nit yoo xamante ni bi tegoo ko fenn di ko di def yëf yi nu la neex ba noppi ñu rey plus de quatre-vingt-trois personnes yoo xamante ni bi ñu faat leen Mhm. loolu yëpp ñu bëgg a bàyyi loolu mu niil Ali Fadilu wax dëgg la Assane. Mhm. loolu bu ñu ko bàyyee tache noire la ah kañ kan la hmm? kan la ay nit ko doon def ci moom mooy responsable bi moom lañ dénk réew mi hmm. ki ñu dénk réew mi mu fal ay nit ay nit di doxal kooku lépp day delluwaat ci moom loolu mooy sens de responsabilité Assane bu ñu la waxee ne la yaa jiitu ci lii hmm. léeg-léeg keneen def leneen mais yow mi nga xamante ne bi yow yaa jiitu yow la ñuy teg loxo parce que dañ naan lii yow yaay njiit li da ngaa war a yëg xam delloowaat jëf yépp nit ñi dañ ko doon def ci say bëgg-bëgg. dëgg xam nga ñëpp gis ñoo xamante ni bii tey ku wax naka su dut noonu. Mhm. jëmale la ñu ne ko raat ci kaso bi ay nit di taxaw di wax lu leen neex kenn mhm. faalewu leen comprendre nga ñu am sañ-sañ. Mhm. loolu kan la Macky Sall nag ñi nga xamante ni bi ñooy victime yi. ñi ngi ci blessé ñu ngi ci tëj kaso ñi nga xamante ni bii tey ñoom lañ ci rey seeni doom ñëpp nañu dajaloo nañu ko topp comme ni nga xamante ni bii noonu la. waa Tchad toppee woon Hissène Habré. moom daa yoroon ministre boobu def collectif. yurutoon la kan. yurutoon justice yurutoon l'intérieur. koogal la kan moo fal may ñu ganaar xam nga bul di bul di wax loolu ñoo ñëpp ñoo ñu collectif ngay def laa ñoo kan moo fal ñu ñuy cité lañ moom day cité fi mu toll nii ci war a dugg ñëpp la ñuy dugalaale ci biir day wax ñoo ñëpp la ñuy la may dugalaale ci biir li muy def noonu lu baax astaghfirullah yaa ngi dégg <laughs> li muy def noonu li muy def noonu. waaw parce que xam nga waxe lu baax lay def noonu. man parce que fi mu toll dafa commencé yoolewaale les autres. ndax man fi ma bàyyi ay waxam. Mhm. bi mu ñëwee toog fii di défendre lu Baye. tukulóoru baay dem mu ñëw def émission ñu ak Sonko ñoo ko da yàqal te da ko doon défendre waaw waaw <laughs> léegi loolu mooy li nga xamante ni moom la moom moom la bëgg a def fii encore da nga nee na yorutoon justice donc day wax ne la ministre de justice ci la day joxoñ <laughs> ne la yorutoon intérieur loolu daf laa wax ne la ministre de l' intérieur ci la <laughs> comprendre maanaam da lay joxoñ ñi nga xam ni ñoo war a dugg ci yëf yi c'est que nañu dajaloo parce que wàccaat bu mu leen bu ñu leen ëpp ful la comprendre nga. Uh-huh. nañ leen dajaloo na nañ ñooñu ñëpp dajaloo comprendre nga. Uh-huh. def li ñu war a def parce que ña nga xam ne ñoo doon xeex mbir pour ñu àtte leen seen Habré dañ cee daw lu ëpp ñaar fukki at ak lu topp. Mm. topp ci ginnaaw pour ñu àtte Hissène Habré ba ñu àtte ko tëj ko fii comprendre nga. Uh-huh. noonu nag la ñuy toppee Macky Sall yaa ngi dégg. kenn du bàyyi yëf yi mu sedd. Mhm. topp ko ba bés buñ koy àtte bu ko defee nga xamante ni mhm. amul kenn koo xamante ni ki di nga mën a tee nekk ci réew mi di doxalee noonu nga xam ne moom la Macky Sall doon doxalee d'accord parce que ni mu doon doxalee rafut mhm. rafetut kon li tache noire la bu fekkente ni bi defuñu ko d'accord te jàpp naa ni dañ ko def soxlawut nag ñu ne nañ parax-paraxee duggaat ci yeneen ni kii jamono ji dafa am loo xam ne mooy li gën a jàmp waaye li war man jàpp naa ni ñoom xam nañ ko comprendre nga li mm. war ak nan lañ ko war a defee. Mm-hmm. war nañ ko def ni nga xam ne lañ ko war a defee comprendre nga balaa mm-hmm. ñuy bëgg a jël at réew mi dugal ko ci ay euh, kii ak euh, kii yu dul loolu. Mm-hmm. parce que am na yoo xamante ni bii mooy loolu mais justice def li nga xamante ni moom la war a def ñay jaar kiy def li ñu war a def bu ko defee ñu daal di yóbbu Macky ci yoon. parce que ko war a yóbbu ci yoon dañ ko war a at.